jot a génn naam Pastef nag daat ne gane réew bi di Sénégal ba ci diwaanu bitim réew waaye Matam nag kii di Farba Ngom moo ko moom te daal dina koy rëcc moom député bii nag nga xamante ne rek jamono ji nag daal dinay défendre titre foncier bu Macky Sall nag daal dinay wan ilimaanu jëriñ bu njëkk bi nag maa la mën naam sax ñëwoon na ci dëkkam doon ko menacé nag ci wàccaay élection yi waaye nag résultat provisoire yi nga xamante rek commission bi daal dina koy fësal takku wàllu Sénégal dafa daal di door Pastef luy bëree bëri maanaam daal da koo mouké di mbuqi mbuqi yu am solo ndaxte nag ah, takk wàllu ma gagné lu toll ci 49 608 voix contre 13 ah, 701 voix ah, takk wàllu Sénégal nag moom ci jëmi boppam daal di jiitu foofa ca diwaan bu Kanel ginnaaw bu mu amee lu toll ci 24 891 Pastef daal di am lu toll ci 6 694 foofa ca diwaan bu Ranérou tamit noonu la fa demee takk wàllu daal di ne am 8 155 voix Pastef daal di am. cinq mille six cent quarante huit voix bu ñu sukkandikoo rek ci journal bi littéral moom moo ko daal di xamle ba tey ci wàllum xibaar nag ba ñu jógee foofu dañuy addu rek wax ci wàllum yoon lu ëpp cinq cent de francs fan nag la ñuy toppee kii di Amir Bobo ki ka koy toppee nag du kenn ko dul ab soxna. ak architecte bi di Pierre Goudiaby Atepa ak groupe musical Gelongal bu ñu sukkandikoo nag ci président bu Stam Global Business di Amir Abo moom ci jëmee boppam rek ma nga ca ndongo seen mu nekk ab homme boo xamante ne dinañ koy placé sous mandat de dépôt nag lañ koy toppee mooy wàllum juj njaaj xibaar bu nu mel suñu nattangooy libération ñoom ñoo ko daal di fësal am na tamit ab soxna bu ko njëkkoon a porté plainte doon ko laaj ci cent millions de francs CFA yoo xamante ne rek da ko koo daal di euh, da ko daal di escroquer mu nekk nag ay détails yoo xamante rek journal bi daat nañu koy xamal ginnaaw bu ñu ko interroger ba noppee kii di amour Amir abo la mu di wax modi paré na pour fay soxna ci nak koparam waaye ci engagement bi nga xamanteni rek jot na ko jël jotone na calmer situation homme d'affaires bi waaye nak dafa am rek lu ci ndax te kirib kier jappi até pas ak groupe musical jolongal ci sen jëmmi bopp ñoom ñoo ko porter plainte bu ñu sukkandiko ci libération mi joxe bobu li xibaar mom ak tek bi dat ne yobbu amir abo nag fa mbaxana doone ben la koy topé muy walum juuj njàcc daf ko daldi lu luubal tolo ci 400 millions de francs CFA bu dé golongal mom ci jëmmi boppam mu ngi koy daldi ci accusé que ne nag da koo engagé woon ba noppi rek te joxul ko nag li nga xamante ne rek moom mooy ay matérielam mu nekk nag mbir moo xamante ne rek mbir mu doy waar jamono ji ñuy wax nag ñetti plainte rek la ñu daal di euh, gàdd ci lalu ci moom la ñu daal di gàdd ci dokk homme d'affaires bii di Amir Obo ba tey bu ñu sukkandikoo nag ci journal bi euh, moo dina nag kii di Amir Obo la ñu koy euh, toppee moom ci jëmmi boppam rek est ce que pare na nag pour euh, fay ko journal bi dañu daal di xamale que ne Abo moom ci jëmmi boppam rek dina daal ñooñ ñëpp porté ko plainte nag dina leen weer ndaxte nag yor na seen audio pare na rek pour fësal ko ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy daal di rek addu daal di wax nag ca la xew ca diwaan bu Kédougou mbir xotay waa nag moom moo fa dal di am ay saay-saay ak ay sambasula bari ñoom ñoo dal di taxaw ci yoon ba rek di dogaale askan wa nag di nangu li nga xamante rek moom mooy seeni koppar yëf yi nag mu ngi daal di xewee fi nga xamante rek moom ca diwaan bu keddugu ak digganteem ak tomboro konto mu nekk nag mbir boo xamante ne nañ ci guddik àllarba jàpp alxames ginnaaw ba une heure du matin jotee nag la ay saay-saay daal di baare yoon ba nag di dogaale nit ñi di nangu seeni koppar am na ci nag benn nit boo xamante ne rek dañ ko jot a faat ginnaaw nag bi suxee ab bal ci kawam jamono ji ñuy wax newam ñu ngi ko dal di yóbbu rek fi nga xamante ne rek moom mooy ci hôpital bu Amath soko bu ñu sukkandiku nag ci source bi joxe boobule xibaar nag ñii di defkati ay ñaawteef dañoo daal di rek baare yoon bi ba noppi nag. di sàkku rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàll foofu nag ñu jox leen ay euh, koppar ñoom ñooñu nag dañoo daal di armé wu ba dëgër jot nañoo faat benn doomu aadama du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen jotaayu xabaar ba tey ci wàllum xibaar bu ñuy jógee foofu dañuy daal di àddu rek wax ci classe bu dox ci diggante nag kii di engagé doomu sam-sam ak Pawlish mbay euh, classe bu tàng jër moom moo dox ci diggante engagé ak Pawlish mu mel ni rek kii di Pawlish mbay nag jamono ji daal di nay tontu rek engagé ginnaaw nag ba ginnaaw ba mu soññee kii di Mame Ndiaye Savon kii di Pawlish nag daal dinay joxañ baram tuuma engagé ne kii di engagé daal lu góor jigéen rek lay joué kaddu yu nu mel nag moo waral engagé ci jëmmi boppam rek daal di koy attaqué ne na ko yow moom yaay góor jigéen bi mu nekk ay kaddu yoo xamante ne rek kii di engagé daal dina koy reproché Pawlish ne na ko nag yow am na lu ma la xamal bés bu ma ko waxee nag Euh, di nga xam waaye nag la mu daal di wax rek moo di ne rek kii di Pawlish dafa daal di am ay détails yu intime yoo xamante ne bëggul kenn xam ko ci jamono bi nga xamante ne rek la doomam bi juddoo euh, tam yëpp mu du mel nag moom ak ki mu jox nag turu doomam jooju la di kàddu yi kii di engagé nee na ko nag euh, bul ma wax loo ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu wax ci Bijou Ngoné mi nga xamante ne rek nekkatul célibataire ginnaaw bu ñu ko takkaatee kii di Bijou Ngoné nekk animatrice ca 2STV moom nag jamono ji daal ma ngay wuyoo ci turu madame Ndiaye yëf yi nag depuis démb la woon mu nekk nouvelle boo xamante ne rek ah, jamono ji nag daal di nay neex lool nag ci animatrice bi moom nag daal di nay dànkaafu nag bu baax ñi nga xamante ne daal dañuy faral rek di lañ bët ci wàllum sëyam nee na nag moom ci jëmmi boppam rek mayeetul kenn rek mu koy souhaité ay encore heure ménage ndax nag tontu bu nu mel mel na daal tontu na ñi nga xamante ne rek dañoo daal di dañ ko ba mu nekk mariage boo xamante ne daal di nay signalé nouvelle page bi nga xamante rek 底比中国呢大的那可以 dal dina koy eh, tijjee ba tey ci wàllum xibaar nak bu ñu jógee foofu eh, dañuy di addu rek wax ci pap Cheikh Diallo mi nga xamante ne ma ngay sargal ak jaajëfal nak Youssou Ndour mi nga xamante ne rek papa la ko jàppee eh, ginnaaw bu ñu ko dalalee nak ci ondu radio Sénégal international ki di pap Cheikh Diallo dal dinay partager ca confidence nak kaddu yu touchant nee na kii di Youssou Ndour papam la ndax moom ci jëmi boppam rek nekkul patron waaye dal la mu dal di gis rek ci Youssou Ndour dal mooy taxawaay bàyyi dëgg di kaddu yi animateur bi di pap Cheikh Diallo Diallo moom nag nee na kii di Youssou Ndour dafay incarné lépp loo xamante ne rek lu baax la ñu ne nag nekkul mentoram ci aaru média bi waaye dafay représenté nag figure paternelle euh, boo xamante ne rek moom mii nekkul na tax parcours professionnel waaye nag développement personnel ndax admiration bi nga xamante ne rek daat na koy am ci Youssou euh, kii di Youssou nag mu ko jàpp nag euh, pap rek la ko daal di jàpp ndax jëriñ bi nga xamante ne daal dina koy am ak relation yi nga xamante ne rek jot na ko sekk ak moom di kaddu yi di eh, Pape Cheikh eh, Diallo jërë ngeen jëf ci and bi bu leen fàtte abonné ba cloche de notification yi ngeen mën a am yeneen i xibaar jaa ngeen jëf mbokk yi ñu daal di koy jeexale nag mën nañ ne résultat yi bi nga xamee ne nag mën nañ ne jot naa ruus kon kii di premier ministre Ousmane Sonko mën nañ ne si élection législative yi ñu nekkoon moom moo jël li nga xam ne nag moo di raw gàddu ko jël premier bu ñu ko mënee tënk moom président bi fi nekkoon njiitum réew bu Sénégal di Macky Sall moo jël deuxième place ba kon nag moo ngi noonu troisième place ba mën nañoo jàpp que ne kii di Amadou Ba moo ko jël moo ngi noonu quatrième place ba ñi ko jël nekk coalition bi di sàmm sa kàddu Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany Pape Djibril Fall Anta Babacar Ngom Bougane Gueye Dany moo ngi noonu dinañ si ñëwaat seen xibaar gën koo yaatal gën leen koo faram-fàcceel jaa ngeen jëf